moom ci boppam. mooy la nga xamante ne bii ba yàlla ñu ngi lay gis ni ko su jóotaloon aadama. bañ bu mu bañ ñu ngi loolee. moo ko teg lu ko dal. aadama it gis na ni. terewoon nañ ko. def naa lañ ko doon tere. te teewul suñu borom jéggal na ko. waaye nag am na solo lool am na solo nan loolu.
waa salaamaaleykum. mbëggeel ñu koy wax meneen laajoon nañ ma ko rek ci Amérique amagul ñaari semaine ah xam naa bu kaset bi dikkee da ngeen ko bu dikkee da ngeen ko dégg waaye ma jaaraat ci kon fii rek mbëggeel xam ngeen ne ay xeeti mbëggeel la am nit dana bëgg lii ndax njëriñam nit dana bëgg lii ngir rafetaayam nit dana bëgg lii ngir yéem ko yéemu ci nit dana bëgg lii maanaam li ñuy wax naan l'amour commercial bëgg koo xam ne njëriñ nga cay wut ak l'amour sensuel xam ngeen ko l'amour ay amour yu bari ay bëggeel bëggeel nag ni nga xamee ne bi ci gën a dëgër mooy bëggeel goo xam ne daanaka amatul illa ni ñu waxee ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sina Abubakar maanaam dafa bëgg Muhammad mii yonente bi Sidna Omar bëgg yonent bi nga xam ne mooy Muhammad loolu wute na ki nga xam ne Muhammad la bëgg fekk Muhammad di yonent moom Muhammad la bëgg ba nga xam ne bu dul yonent bi def ko bëgg bëgg boo xam ne rek mun mën a mel bëgg na ko bëgg bu mënul a rey mooy bëgg bu amul illa mooy bëgg bi gën a dëgër ci bëgg yi Sidna Omar daf ko bëgg dafa bëgg yonent bi fekk yonent bi mooy Muhammad kon yonent gi mu nekk moom la ko bëggee bëgg bu am doole loo waaye ba tey bëree ko ëpp doole nga xam ne daf ko bëgg ba nga xam ne nee ñu sëriñ bi bëgg bi nga xam ne moom nga ko war a bëgg ba mu mat boo ko gisoon mu mooy yàlla yi du tax nga nga sa bëgg di wàññi ko bu la xañoon li nga bëgg lépp it du tax mbëgg gi dara wàññi ko ci bu la defoon li nga gën a bañ it du tax mbëggeel nga dara wàññi ko ci mooy mbëggeel du mat bi nga xam ne amul illa te dara mënu koo xont dara mënu koo dindi am taxawu noonu lañ gisee mbëggeel tax mbëggeel mbëggeel day dindi aadami maanaam mbëggeelu taal bi ci seen day dindi niteel gi nite gi mu nekk nite melaw nit wi dañ koy dàq mas nañ ko nekk li ci beneen conférence bi waxee ne sëñ Tuubaa dafa doon jàpp taal bi njëkkante njàpp mi di ko naan ak di ci diwu benn naa ne ko war man te li ma jaaxal sa njàpp mi ñi di ko naan te njàpp mën na nekk mën na am sobe ndax da ngay raxas sa ay cër loolu laa xamul lu ko waral mu ne ko suñu borom dafa leen a nëbb sama ayib maanaam nekk gi ma nekk doomu aadama sax feeñatul si ñoom gisatuñ ko ndax la xeeñ yàlla ba nga xam ne daraam feeñatul lu dul yàlla daraam lépp am nëbb na yàlla rek a feeñ nga xam ne daanaka ki koy xool dafa mel ne yàlla rek la koy xoole kooku moo ko bëgg bëggeel bi nga xam ne dara mënu koo dindi te dara mënu koo wàññi kooku mooy tax àgg ndax sëriñ bi wax nañ ba taali ne taalibe bi buum gi ko yeew ci sëriñ bi mooy bëggeelam bëggeel ni ñu waxee ne sëriñ bi ci boppam daan wax ne sama bëgg gi ma leen bëgg du leen jëriñ dara waaye bëggee bëgg gi ngeen ma bëggee yéen moo leen di jëriñ kon nag taalibe bi ko gën a bëgg moo gën a mën a gaaw a jëriñu ci moom kon mbëggeel ñu ma ko wax nag bu fekkente ne kaset boobu ñëw moom dugg naa ci détails yi ndax benn laaj yoon boo xam ne daanaka moo doonoon waxtaan wa bu ñëwee dañu ci gisee waaye pour gannaaw leneen la am na ñu gàtte ñu ci loolu waaye mbëgg gi mooy boo loo bëgg te dootuloo ci rek booba def koo bëgg ñi nga xam ne nag dañuy def inkaar mbëggeel boobu dañoo di mu fi yaatu boo demee Égypte rek taalibe Cheikh Ahmadou Badawi bu ñu bu ñu ràññee ñu si jàppee Amadou Maras jooju di sikkar ba mu yàgg dañuy mel ni gaynde mel ni ñu dof xamatuñu dara ma ne xanaa ku xamul Baye Fall ñii ñooy Baye Fall dëgg mooy ci jommi ci jommi dañu ne boo jommee ci suba te war nga jommee jinne ne dara jëloon ci suba jinne ju ndaw la waaye jinne ju mag boo dajee moom bu la nee la di wax dootoo jommee ci mukk këñ mën nañ koo taalaat mën nañoo taalaat jëli waaye doom kenn mënu koo taalaat mu tàkk taalibe bi dëgg noonu la war a mel ci sëñ bi léppam la war a bëgg lépp lu ko xasee Seydina Abdoulaye ibn Omar dafa daan nekk ci benn caru garab bu sax buy soog a sax di ko jubbanti di samp bant di ko ci yeew di ci sotti ndox def bu ñu ko ne waaw yow garab gii lu mu lay jëriñ mu ne yonent bi sànq dafa toogoon ci wetam bëggeen dëggal boobu bëggeen boobu nekk li naa ci kii boobu si naa Omar ibn al-As ci ñetti tolluwaay yi mu toll ak ni mu gën bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba xam ne mënu koo xool ba ko ko laajoon nu yonent bi mel du ko mën a misaal ndax mosu koo xool ba seppli ko
jërëjëf président yaakaar naa ne am na beneen boo ci tegoon waaw li ma ci tegoon mooy diggante al amru wa nahy maanaam diggante diine jëfe ndigal ak bàyyi tere wax ñu doon waxee ni iblis maanaam jëfe ndigal li ko yàlla digal ni ko sujjóotal aadama ñàkk gum ñàkk a jëfe ndigal yi moo ko teg tey jii ko daal su su suñu maam aadama itam xam na ni yàlla da ko doon bu lekk ca garab bee mu lekk waaye lekk bu mu ca lekk loolu da koo teral waaye teewul bu mu wëlki ko am na bu mu jaarale mu jéggulu ci la jéggulu ba ñu borom jéggal ko
d'accord waxtaan bi mën na gudd de loolu de mën na bari lool waaye gàttal gàttal di def tere yi ak bàyyi yi ndigal yi yëpp garaaw la lu ci nekk lu rëy la lu mën a indi ak texee di waaye nag nu dugg ci détails yi misaalum aadama ak iblis faral nañ koy waxtaane aadama ak iblis nag dañoo wute ci façon moyen benn moyenu aadama mooy liñ ko tere mu def ko iblis a ko sabab ñaareel ba aadama ci boppam gannaaw ku ñu yërëm loon ca azal nga xam ne defaru gudul gudootul yàqu la dafa daal di tuub aadama ci boppam bu mu bu mu lekkee ci garab gi dafa dal di nangoo nangutul wëlbatiku fu xelam fu mu fu mu jublu rek xelam dem ci suñu borom day wëlbatiku foofa suñu borom di ko natt ne ko xanaa da nga may daw mu ne ko déedéet dama lay rus dama rus yëre yim soloon yépp wadd mu dagg ci cari garab yi di ko muure boppam aadama ci boppam bi nga xamee ne def na loolu mu def te mooy garab bi ñu ko tere woon mu lekk ci am na yu bari yoo xam ne yii li ñuy wax circonstance atténuante am na ci ndax benn iblis ba nga xamee ne mënu la fexe ba dikk ci aadama wax ko sant ko lu yàlla tere mu def ko mu jaare ci xawaa ndax li xawaa nekk jigéen xawaa ci boppam moom moo tax li tax ñu ne inna kaydakunna azimun la ji la iblis tere woon ci aadama xawaa moo ko man ba mu jaaree ci xawaa la ko def iblis iblis aadama bàkkaaram moo gën a woyof ndax dañ koo juumloo fàtteloo ko iblis nag bañ gi mu bañ daf cee boole rëy ak ndëkk yàlla ndëkk suñu borom ci bëre ne ko man maa gën ki nga may sujjóotloo ñu wax ko wax sujjóotalal mu bañ bañ gi mu bañ mu sàkk lay ngir maanaam justifier boppam wane ne man yaa ngi ma bind ci ndax aadama ba nga xamee ne suñu borom xàjji na ko dafa dal di dellu gannaaw toraxlu jooy na nangami jamono iblis nag dafa dal def tëjabur moom ak takabur dal di moom dal di gis boppam wan bëtik wane ne moo gën aadama indi daal ak rëy gu mat sëkk ak bañ gu mat sëkk boo xam ne rëcc wu ca dara dafa dal di wane ne li mu nekk mooy dëgg ndax jaamu na suñu borom waxuma fenn waaye ci suuf si ba nga xam ne nee ñu foo def sibra si iblis su jot na fa nekk na sangu malaayka yi maanaam malaayka yi newoon ci suuf nekk na seen sangu nangami at Iblis jàngale ci lawxul mahfuz ne buñ demee ba ci jamono sàngam suñu borom dana digle dara dana am ci malaayka yi ku bañ gëmul loola ba bis bi nga xamee ne suñu borom digle na ñu si jot ci aadama mu ne nag mu ngi seet ba xam loolu ñu waxoon ndax am na kenn ku ñemee bañ wala déet moom boolewu ci boppam jàpp na ne moom moo gën aadama ba warula si jot bi nga xam ne malaayka yëpp si jot nañu ba àggale wàññi ko nag fekk mu taxaw ñu ne waaw yàlla da nga du si jot da nga du si jot rëy jàpp ko mu ne leen man du ma si jot maa ko gën kon ba tey wuute nañu xeetu mooy ndax ki nga xam ne dafa mooy ba noppi xam mooy gi rëccu ko tuub kooku moom ku tuub suñu borom daf lay jéggal ku rëccu itam boole woo ci rëy suñu borom dana la yërëm waaye ki nga xam nag moo moo moo ci boole rëy ba noppi jàkkaarloog suñu borom wan ko ne loo man defal nangam lii man du ma ko def mukk dafa boole yeneen bàkkaar boole na ci rëy boole ci réer boole ci dëng akuk bañ akuk wane ne yàpp suñu borom yooyu ñu boole yépp moo tax nag suñu borom moom baalu ko ndax baluwul jéggalul ba fee bu nekk buñ demee yomal xiyaam ba mu lakk ba lakk ci safara yi ay junni junni at buñ ko nee tuubal su jot ci aadama te ñëw àjjana du tax mu nangu du tax mu def ko nga xam ne ko kon moom ca azal la ko suñu borom bindoon ci fa mu war a jëm ba noppi waaye moom ci boppam moo ko dëggal ndax sabablu mooy waral suñu borom moom jaam bi day sabablu moom mooy dogal dogal bi muy dogal nag fekk ne jaam bi am na ci wàll ndax moo ko sabablu mu fekk ko ca ndax suñu borom bu fekkoon ne day jëf rek te duy sàkkul ay sabab ci ko suuf si kon ñëpp xam ko waaye nag sabab yi mu doxal digganteem ak jaam ñi mooy tax ñeen nag ci jaam ñi kiiraay yooyu nëbbu leen ba duñ xam yàlla ñi nga xam ne nag ñoom ñoo xeex ba xam yàlla ba xam ne sabab yooyu gisatuñ ko ñoom la suñu borom gën a yërëm waaye nag sabab yi moom mooy ci la jaar ba ci mu ku ñu lakk ci lañ la lakkee yaa ko sababu la tax ñu lakk la ku ñu yéenam itam yaa sababu la tax ñu ërmi la gannaaw ba nga xam ne ne coobaral suñu borom am na ba noppi kon wedd ndigal ak def luñ la tere ñoom ñaar ñëpp a garaaw waaye bàkkaar bi nga xam ne sa bopp da nga koo def ba noppi rëylu ko mu rëy nga xam ne daganaloo ko moo gën a woyof bàkkaar bi nga xam ne même bu tuuti woon da nga koo daganal wala nga rëccuwoo ko nga ne maa tey bàkkaar bi mooy bi gën a màgg bu fekkente ne nag dañu ne la nag defal lii def gi moom nga ñàkk def gi def ko nga bañ koo def moom réye ko gën a te muy loo man lu wóor ne man nag réye ko waral bu laal lii nga laal ko nag mën na am loo xam ne moo tax nga laal ko benn muy irtiraar moo di ci nangu ñu daal xamuñu ko mën a am contrainte xamuñu ko mën a waxee ci wolof ci lott ci daal mun loo koo ñàkk a def am na ay sabab bu ci nekk nag boo ci xam ne nag amul sabab boo xam ne dana ko def tabliir bu ànd ak dara ci rëy wala dara ci inaat mooy dëng loolu mooy bàkkaar bu gën a rëy bàkkaar bi nga xam ne nit ki moom jooy na ko lu mu metti metti bu ko jooyee rëcc ko rek bu tuubee suñu borom jéggal ko tuubit ñu am na ñetti sar ni ñu ko daan waxee rek loolu yàgg yaakaar naa kon loolu leer na te itam ni ñu ko waxee woon yaakaar naa bokk yi fi ñu toll nii
waaw wax yaakaar naa ñetti waxtu li ci des mooy ñaar minute yu topp te itam Serigne Abdoulaye Seck ñëw na waaye am na loo xam ne mënuñu koo bañ a laaj ndax bu fekkee ni mën nañ ñu ko rek loolu nga wax loolu ndax dina bindloo bopp mu ñi fi teew yëpp mu léegi ko nga doon wax bu fekkee noonu lañ ko gisee te mu dégg itam nga xam ne noonu la bu fekkee ni gisee ngeen noonu way wax lu nekkul itam nga leer doon ko leer mooy loolu nga xam ne léegi ko nga doon wax léegi sëñ Sam te Iblis lu ko tax léegi ko moo ko ko teg maanaam ma gis man sëriñ bi nu mu tàggee lii ak dongo yi waaw ndaxte moom dafa am lu ñuy wax xaalis bu ñuy wax laay doxul jàll man jaar bi xam ni xanaa dara te mel kibri képp koo xam lu toll ni dara daa ngi mi ngi ci gën ci sa xol loolu bu àjjana sëñ Tuubaa rek jëloon xaalis bi yóbbu ko ci école yi di ko jàngale mais da ko pratiqué loolu nit ñi ba rëñee ci ñoom ñuy sukkal garaam ngir ëllëg mu mën leen a sauvé su fekkee loolu bi mu ngee baax ginnaaw képp ku ñu xamul bu ak lii tàggoo nga ak moom. kon yaakaar naa ne luy sànq ci nekk ñun jiw ko. ginnaaw loolu itam laaj bi mooy dañ ko laaj ni ndax yonent yi da ngaa waxoon léegi ni yonent bu weesu rek. weesu nga ci fi nekk moo compté. maanaam président bi dem dem na président bi fi nekk la ñuy déglu. ndax moo fi nekk. léegi ndax loolu itam dëggu na dal na ci ñi nga xam ñooy prof bu zaman yi. ndax loolu itam seen biir xew na ci wala mu demee.
bu nekk bi moo di noonu ci waa ak rëy waaw ki mën a defar moom day fekk li alak taalibe bi mu dindi ko ci moom rëy moom moo gën a bon ci bàkkaar yépp ndax suñu borom nee na rëy mooy mbubbam màgg moo di am ñëgam moo jagoo rëy ku ko ci fekk mu lakk la rëy moom safara rekk beneen melo bu mu mën a doon mën naa am lu ko wayafal wala lu ko kaafaara ba mu deñ ba borom dugg àjjana waaye rëy moom mooy ki man tey tey tey tey tey defar rëy la war a njëkk a dindi bu fekkee ne dindiwul rëy mënul ki nga xam ne moo mën a fekk ki rëy mu fexe ba mu wayaf nangoo toroxal boppam nangoo sit ko karaam nangoo liñ ko sant mu def lu mu am atan koo joxe mooy xol bu defaru doom dafa mën ak manam kenn nga leen ko tax dindi rëy ci xoli mbooloo yu bari ku mën loola ku mën rëy nag bu xasee dañ nit ki yomba defar daanaka ku ku ku rëy dañ ci moom sax mooy ku defaru mooy ku defaru waaw ñaareel bi moo di yonent yi yonent bu wéy bu ñu yónnee beneen booba yonent mission jeex na toppaloo tuñ ko royloo tuñ ko ci teew la ñu roylu moom la ñu déglu moom la ñu topp xurbul xaw su li moo am yonente bi salaa sallam gannaaw dafa boole martaba yonent yépp ak seen cër yépp boole boppam pour bu xaw dafay doon la yonent bi salaa sallam mën na koo doon ne ci cër boo xam ne yonent sàngama ko moomoon moo tax booy yër téere sa foofu yi da nga gis ñu ne diw Muusa wi maanaam ko jóg yonent yàlla Muusa la wala diw Isa wi ko jóg Isa la wala diw Yaqub bi wala ñu tudde tudde ne yonent sàngam la tekkiwul ne dafa bàyyi diine Muhammad salaa sallam topp diine yonent boobu déedéet waaye ñi nga xam ne yonent yooyu yëpp seen cër yi dañ ko doon ci yonent bi salaa sallam ñoom dañuy doon ne kenn ku ci nekk cër boo xam ne beneen yonent ko doonoon nga bokk comme yonent boobu moom la ñuy ne misaale ne diw nanga bi yun maanaam Isa bi yun wala Muusa bi yun wala Ibrahim bi yun wala loolu waaye bi nga xam ne yonent bi salaa sallam aaya ji wàcc moom ne inna diina inda llahi lislaam diine ji yàlla nangu mooy lislaam om yebtax xaal islam diine fan wax ba minhu ku dikkee yàlla beneen diine bu dul lislaam depuis ba Muhammad ñëwee ba ba saa di taxaw yàlla du nangu diine jooje loolu xurbul xaw mucc na ca ndax dafay doon yonent bi ci matal sharia doon ko ci xaqiqa doon ko ci zahir doon ko ci baatin ca kam li ci yàlla ci moom ak kam lam ca attal boo gisee ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na suñu borom dana yebal ci bopp bépp téeméeri at waa joo xam ne bu ñëwee day beesalaat diine ji beesal maanaam day beesal xoli nit ñi delloo si nit ñi ci diine xamal leen yàlla am na benn conférence boo xam ne loolu doonoon thème ba maanaam al mujaddid si Ahmadou Bamba al mujaddid ñu waxtaane mujaddid yi ko jiitu woon ak li ñu def ak nañu meloon ba ci moom itam tëj jiidam ni mu ko waxale boppam ak ni mu matale charte yi ak ni mu ko defee ñëpp gis kon xutbul xaw du gën mukk diine lislaam mënu la nekk mën na doon na nag ci yonent bi sallallahu loo xam ne beneen yonent ko doon noonu mu nuróog yonent booba ay mbir ci baatin ak ci zahir mën na nuróog moom ci ay nattu mën na nuróog moom ci xam-xam mën na nuróog moom ci jaamu yàlla mën na nuróog moom ci tegg mën na nuróog moom ci ci ay ay ay mbóot yoo xam ne mbóoti secret la yoo xam ne nit ñi xamuñu ko loolu mën na nekk waaye nag l'islam dong lay mën a nekk mënu la nekk ci beneen diine bu dul l'islam am ak li nga xam ne marque bu koy bu muy amee féete kaw yëpp lu tax mu génn mukk l'islam kon loolu mooy tontu bi.
waaw beneen kii laaj bi kii moom day laaj. nee na waaw ndax murid yëpp. ak yeneen ak jëm. te loolu lañ yaakaar. loolu lañ jàpp. loolu am tax. te itam.
noonu la ko bindee mu ne loolu am tax.
waaw man maa ngi loolu.
waaw waaw waaw tax
muy ne day laaj ay leeral. ci maanaam. xasida yi nga xam wala ay lenn ci ay mbir yoo xam ne sëñ bi wax na wax na ci sëñ bi wax na ci lu mel noonu. sëñ bi. sëñ bi wax na ci lu mel noonu. lenn ci ay bayt. lenn ci ay bayt yoo xam ne sëñ bi wax na ci lu mel noonu.
waaw. waaw bay yu bari sax ay ñu wax naan waaw kooku sax mu ngi wax waaw mu ngi wax maanaam ahlu tasawuf yi njëkk ñëwoon sadiqin lahumoo waaye moom ci boppam wax na ne wajhu lazi yuhibbuni yabyadu yawma wujuhu suada tabyadu waxuma ku di taali waaye képp ku ma sopp bis ba nga xam ne ku texe dong la kanamam di leer ki ma sopp bu keroog ngay xar kanam day leer nañ ni loolu doy na sëkk kon kon loolu lépp ci la waaw.
bi mu ne ak fas nafsi wa jami ahli fi jënd ak wala war ak fadl itam doy na sëkk yaakaar yàlla mi moo xam sëñ bi da nga wax sànq ne leble waaw fukk ak ñett la maanaam waaw ne moom la li nga xam ne mooy sànq waaw léegi jamono ji ak koo xam ne nii. ñu bari nañ la ko boo demee ba duñ la may. laaj loolu nag bu assuré. julli ni lan mooy seen taxawaay ci loolu.
jullit ñi jamono dafa dikk yoo xam ne am nañu yeneen melo ba ñu xañ leen yu bari yu ñu amoon yu ñu amoon bunt yu bari ubbi ko woon sakk ci kaw seeni jikko ngir bëgg jullit ñi nekk benn kenn ku nekk yërëm sa moroom bëgg ko yéene ko li nga yéene sa bopp boo gisee lu koy lor nga taxaw attan caa sonn bu amee naqar nga bokk ko moom boo gisee lu koy jëriñ nga attan caa sonn ngir mu jëriñ ko ba tax kii lépp dafa jaaxle waaye yaakaar na ne ëllëg dana am lu mu fayee mu ñëw di la leb nga war koo dimbali ngir yàlla ak yonent bi nga xam ne yonent bi salaa sallam dafa ne man nafasa qurbata أخيه المسلم نفس الله له قربة قربة من الكريم منك من القيامة képp koo xam ne sa mbokkum jullit jàqara nga dindi njàqare loolu bu yomal xiyaamee suñu borom dana dindi njàqare ba nga xam ne njàqare yi ja bari na te metti lépp nag ki nga xam ne da nga koy dimbali lebal ko ba mu am fay la moo ëpp tuyaaba nga fukki sax nga amee fukki dërëm sarxe ko amee fukki dërëm sarxe ko ba muy fukki fukk di téeméer nga sarxe ko benn fukki dërëm bi nga lebal sa mbokkum jullit mi lot nga lebal ko ko moo ko ëpp tuyaaba waaye nag bi demee ba nga xam ne léegi xatara ngi ci boo ko lebalee du la fay ndax boo lebalee ñaar fukki nit xëy na ñeent wala juróom la ngay fay ah bu boobaa bunt boobu sakk na mu des yéene ndax dañ ne nag anniyatu niyatul mumin ablahu min amalihi yéene nga ko lu baax waaye xam nga ne boo ko joxee du la ko fay te mënuloo ko amuloo kattan mën a maye lii boobaa da nga am yéene ji kon da nga am yoon ba ndax yéene ci boppam suñu borom daf koy fay dafa ne bu fekkente ne nit ki yéene na lu baax ba noppi def ko daañu ko bindal téeméer ba juróom-ñaari téeméer bu fekkee ne yéene na lu baax te mënu ko daañu ko fay fukk ba téeméer ki nga xam ne nag kon yéene na te mënu ko mooy ki nga xam ne bëgg na lebal waaye jii kat mbokkam la waaye leer na ko ne wala am na sikki sàkk ci ne bu ko ko lebalee dana ko du ko fay te moom it aajo woon na ko te kon dana lott ba toll fa kooku tolloon bay lekk boobaa yoon sant ko mu lebal ko ko bu fekkente ne nag ah loolu tax na difu ko yéenam jooju mën na taxaw taxawaayu jaamu yàlla ndax li ñu njëkk a sant jullit ci moromam na ko yéene li mu yéene boppam kon xam nga ne kon kii am soxla bu doon yow boo amee soxla da nga yéene soxla si faju kon sa mbokk jullit mi am soxla yéene nga kon soxlaam si faju waaye nag mënuloo ci dara ndax boo ko joxee sa alal du la ko delloo dafa dëng bu boobaa yow da nga am tuyaaba yéene bi waaye kenn santu la nga def ko sa alal nga def ko du la ko delloo
waaw xanaa léegi man beneen bi ma génne waat mooy lu mel ni tudd yàlla muy décro la la ilaha illallah muhammadu rasulullah màgg gu màgg te itam mu gis ni bokk yi sax bari na ñoo xam ne ñoom nekk ñu fi di boole laa ilaha illallah ak lenn loolu mooy seen liggéey suba ak ngoon muy bokki ba faat loolu mooy seen liggéey suba ak ngoon te am na sax ñu koy def ba sori ci tudd googu yàlla ba sax dañ ci boole nag sewala leneen ak leneen loolu nag ma gis ni am na benn nga doon ci leeral waaye li nga xam ni jàpp rek na abi talib doon na ko def ni doon na toog ci kanam yent bi ba ci yàgg yonent bi ni ko asbaxta xalqi wa xuluqi waaw nuru nga nuru nga ba ci ko nuru nga ba jëm mu jóg fekk ci kanamam te yonent bi dindi ko waaw te itam boobu ci xàll ay ko maanaam ko tax mi yëg rek rek waaw loolu ahlu tasawuf ñoo ko doon ci saaba yi yonent yàlla daawuda alayhi salaatu wasalaam daana feccal suñu borom tabaraka wa taala Jaafar ibn Abi Talib feccal yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu lépp li koy waral mooy xol bu fees ak leer ba borom daanu daanu ñi nag ñooy wuute waaye fecc ni daanu la lu tasawuf ak ñi nga xam ne seen xol set na seen ngëm dëgër na maanaam fees bu seen xol di fees ba dootuñu moom seen bopp mooy waral ñu réagir réaction boobu ñuy def nag mën nay fecc mën nay mbëkk dara mën nay tëb daanu mën nay yëg wadd mën nay naan mu tàng bu ne mën na ko doon ndax xaal lay doon xaal la boo xam ne nit ñi dañ ne law nu maa law nu inaa ihi kenn ku nekk ak na ngay réagir dañ ne ndox buñ ko defee ci ndab couleur ba ndab la amee rek la ndox mi amee noonu la leer gi di dugg nit defe ki nga xam ne leer gi daf fekk muy nit koo xam ne tarab daf koo jege day def tarab bu dee koo xam ne ko xusnu maanaam njàqare moo ko jege bu fekkee ne leer gi dugg ci moom day jàq benn muy jooy wala muy wala muy yóox wala muy xaaju Cheikh Abdou Qadir Jilani radiallahu taala anhu daana ñoo topp àll bi di daw Muhyiddin Arabi am na bis mu génn di yuuxu ndax leer gi dugg ci kii xolam ba attantu ko fekk bàmmeel bu ñu gas mu dugg kii kuy jaay bàmmeel xam ne day gas rek bu néew ñëwee fay ñu fay ko daal koy suul mu daal dugg sa biir bàmmeel ba ba yàgg ca loolu ndax xaal boobu ko jar dégg ngeen ñu ne Cheikh Ahmadou Bari bi daana yëg ci kaw terrasse ne jàkk benn tomb ci asamaan si rek ba am ay fani fani fani fan ba mujj nagu bët bi ñuuloon dafa xonk coy mel ne xalu safara wuy taal dégg ngeen ñu ne Cheikh Ahmad Bamba radiallahu taala anhum ajmaina ci ndawam baal tegoon nañ ko ku nitewul ndax daana topp àll bi di di waaxu waaxu moo xam ne waaxu mu tàng jekki-jekki daal dina tafet njuuy daal di jaar jubluwaat feneen biñ koy laaj ci jamono yoo xam ne génn na ci xaal boobu mu ne ndaxam dafa am lu may woo te fu bu ma jubloo ci bu ma ci jubloo ba defe ne fii la ma dégg baat bi feneen bon yooyu nga xam ne nag gaa yi yàlla yi loolu daf leen di dikkal ñeneen ñi nga xam ne mën naa am benn ak buñu si ñoom wala wuute nañu ak ñoom ci aw melo li ñu waxee lawnul maay lawnul inaa yi ñuy réagir neneen ñi nga xam ne ndax diggante jalaal ak jamaal dafa am ki nga xam ne leerul noorul jalaali moo ko dugg mooy yuuxu noonu mooy waaxu waaxu xam wala muy yéeg wala muy jóor boppam ki nga xam ne noorul jamaali moo ko dugg dana fecc dana way dana dana dana fo ñu def luy nuu fo te du fo loolu ay secret la yoo xam ne ahlu tasawuf ñoom ñoo ko xam waaye fuqaha yi kese yi mënuñu koo xam xam nga dañu ne bidayatul fuqaha yi nihaaya nihaaya fuqaha yi bidayatul fuqara waaw lu ko lu ko jeexoon na jéegé am na lu ci tegoon ci waaw léegi lu wax na waaw fekk waaw laa ilaha illa allah waaw laa ilaha illa allah dañ ne téere yëpp wax nañ ne mooy ngën ji lu jóge ci lamiñ laa ilaha illa allah gis ngeen si Jazaaw Chakoor ki sëñ Tuba doon dénk radiyallahu anhu ba ne ko laa ilaha illa muhammadu rasulullah saxoo ko sàmm say cër ak sa gémmiñ xam nga nan ko waxee ba ne sa lamiñ jeex gis ngeen ibnu Achir bi mu wax ba ne mooy ngën ji ndax ñu teef loo denc ci ngir ëllëg gis ngeen def na mooy ibnu qudus la wala maxaaliqu niiraan bu sëñ bi di waxee ne da ngay sax ci laa ilaha illa di ko tudd di ko tudd di ko tudd ba mu jaxasoog sa deret di ko tudd di ko tudd ba mu jaxasoog sa yàpp jaxasoog seeram lépp da nga gis kéemaan yoo xam ne kéemaan yàlla yoo xam ne day waar la loolu mooy saxoo ko moo koy waral baat laa ilaha illa mooy junj ni suñu borom li tax ñu sàkk lan mooy baatu laa ilaha illa laa ilaha illa muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wasallam muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wasallam moom farata la benn yoon ci dund nit ki maanaam mooy xam nga ne nit ki mu ngi ci lislaam gëm na lislaam kon gëm na muhammad waaye la ilaha illallah bi bu fekkee ne moom da ngay sikkar nga yem ci moom it dafa am ay jaar jaar yu muy jaarale nit ki ba àggale ko ci yàlla àggale bi ñu koy àggale ci yàlla mu ngi aju ci ni mu koy teewloo ni mu ko sellale li ëpp ci ulama yi dañu ne li ci gën nga di ko wax ca kaw say cër di ko dégg sa nopp di ko dégg muy aw ci sa cër yëpp mooy tax mu gën a gaaw a jeexital ci yow bu fekkee nag da nga koo saxoo ba noppi tey wattandiku mooy wattandiku soxlaal sa yeneen cër yi ci leneen da nga gaaw a àgg bu fekkente nag yeneen cër yi am na ñi ngi jëfe li ñu tere dafa mel ne que kuy kuy duy ñu di ko ngëcc di tuur fekki ndax bët dafa am lu ciy jeexital boo xoolee lu daganul am na lu ñuy tànqe ci leer bi doon dugg tóor nopp bu fekkee ni mu ngi déglu lu mu warul a déglu am na lu ñuy tànqe ci sa leer gi tóor bu fekkente ne itam sa loxo mu ngi laal lu xaraama laal lu daganul wala ngay lekk loolu yëpp lu ci nekk xeetu leer bu muy génne ci yow day tax nga yéex àgg mën nga sikkar lu yàgg doo àgg bu fekkente ne nag da ngaa yi ni ko waxee ne saxoo ko sàmm say cër ak soo làmmiñ ni ko sëñ Tuba dénke waajooja bu fekkee ne da nga sàmm sa cër yooyu sàmm